alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy njaboot gi ak mbokk yi ñi fi daje fu ak si jege ñëpp ñu ngi leen di nuyu di seen siyaara ci yow ak njaboot ak Mame Malle yoo xam ne dikk ci béréb bi yaa de suñu mag ak si nañ ñu ngi laa siyaare di sàkku ak ak tëb ak ak yokk ci saxe ak ci baasi loolu mooy njaboot bi mooy wax bi maa ngi dalee nag ci ki ci njaboot bi ba ko gën a doon gën ci nattale ci doom ak sët ak mbokkam bi ñëpp ñu leen di siyaare ci bisu tey bu màgg bii ci béréb bu màgg bii nii xam ne fi mu nekk nii ñu ngi junne ñu ngi toog ak Mame Malle ñu ngi gërëm loolu tëdd ci sant yàlla di leen siyaare di leen wax ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xalaatuma ñàkk xalaatuma am bu dee ñàkk ba ma ñàkk ndeeg ba yàgg na bu dee dee kar ba ma jógee ci alaaji bi teel laa dee ba bési tey bi bu ma toll maa ci dee bon bon xam la ku ñàkk ndeeg bàyyi dem ba sëriñ kenn lu àgg nga ci ñàkk ndax yàlla amul dara wax leen lu yàlla am gisuma lu am de wax leen ma lu mu defar mu ne moo bind mbindéef bi fan la ko bindee gan xalimba ak xàll ba ja fan la ana àll wa ja muy xalimba di bind mbindéef foofu dem na doy na bon yàlla moom kenn fi ne new fekk keneen lu fi ne la duur moom xamul li ci des yóbbu wax rek waaye moom rek moo fi ne no fekk kenn mooy fépp da lépp da ñëpp dara naw fi duur yàlla man yàlla moomu lolo ta, nag bañuma kenn nak tax tax ki bax ak ki bon ndax xamu mo nak bax ndax lepp man melaw yalla la ci gis lolo tax ragaluma dara itam nak ndax de ragaluma ko ragaluma ñak duma jambat duma mustafa mustafa ñu tok na fi lolo la ko nga ko duma ñaan duma lepp duma tolu duma ma jàmbat su ma xiifee duma ko kenn du ma dugg ci kër kenn xañu ko wóolu naa yàlla ci peron mbedd ma la laay fa toog fa la ñuy doon ko ndox ma tey su ma oto yi dafa gaare foofu laa toog man kenn ñu ne damaa dof ñàkk dof ma toog foofu waaye fi mu ne nii waxatuñ loolu bon war naa gërëm yàlla bu ma bu ma dee nga foog ne dee naa feeg yaa fi maa ngi dund. jërëjëf man la kan mën koo rey ndég li ma fi ne. waaye yow kenn du la mën a rey. feeg yaa ngi fi maxtaar kaddu dee. Mm. maa la wax loolu góorgóorlu gëmal sa bopp te bugg yàlla bu ragal kenn buggal lu baax dal dimbale jaame yàlla yi dal yërëm ñëpp loo xam-xamal ko ñëpp waaw ku waxu dëgg fan loo ko ku wax dëgg xandal ak moom ku la jaay bañ ko ku la bañ doo sooy bokk bakk

sama borom mooy sama borom na ma ko euh, neex a dénkaane koo xam ne kii nii ci béréb waxtu wala neexee nga dem fa guddi ak bëccëg dafa fekk mukk benn njombe waxtu wala neexee dem nga waxtu wala neex ah. nga ci kër ga fay fekk li gën ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi fan wu gudd ne wii nii ak ubbeekaay goo xam ne gii nii dem de dem de dem de dem de dem de dem de dem de li ma wax yàlla xam na yónnent ba xam na Cheikh Tidiane xam na Baye xam na côté Doudou mi xam na may itam xam na. ñu ngi gërëm. man gërëm naa man tam sant naa.